jëmm jooj di wax noonu xam bugguma sax tudd turam kooku moo dàq fen kuy fen du waxkatu dëgg moom du waxkatu dëgg ñooñu ay naafeq yu bon lañu bu dëkk tàkkee rek genre did yooyu ñoo koy taal parce que moom mënul teg loxoom ci kaamil ne gis na Alioune Sall ne toog jox ma xaalis ne ma utal ma ay nervi Amadou Sall ne ma utal ma ay ay ay nervi mais man nit dafa may yabee yab gu toy ni bu dol ni man ko ma jógee Europe xam lu nekk sama bopp jàng fa lu ne gis yoonu baax gis yoonu bon gis jaaykatu dorog gis ñiy tux ñiy tux dorog munoon ci dugg dem jaay dorog def yor xaalis ma neex comme ni ko nit ñi amee fii nii man defuma ko ma topp ci eh, yoonu siraatal mustaqim ba jàngee Europe lu bari dinaa ñëw fii sama dëkk yàlla commencé ma tàccu ma naan damay ut ay nervi pour lan non daf ma metti metti yu ma man kese de képp ku dëkk Grand Yoff képp ku dëkk zone 7B daf la metti parce que xam nga xam nga kii lu muy wax nii adressé wul moom moom déjà li muy def nii rek mi ngi yàqal waa Pastef mi ngi leen di yàqal lu bari parce que ñun man boog aw ma jotu naan damay utal mbindeef nervi pour mu xeex man mi nga xamante ni nekk naa Europe doon doon xeexal sax Sonko yaa kon man naka lay ñëw fi nit ñëw naan ma kay outal ma nervi kay outal ma ñuy xeex. Zarko am ben relation ak Amadou Sall. si bien sûr mais Amadou Sall di nit ku baax di doomu président nek ci dëgg bi di dimbali ay nit di dimbali fu nekk Guédiawaye Thiaroye Pikine parcel pourquoi pas di jappalé papam pourquoi pas warul jappalé wa Grand Yoff mais pourquoi warul jappalé wa Grand Yoff mais ñom limuy jappalé wa waa Grand Yoff daf leen metti wala lan mais ñun dañoo ñëw pour avancer pour avancer Grand Yoff pour avancement wu Grand Yoff lañ soxla pour ñu jappalé jeunesse su Grand Yoff ñun ñëwuñu fii pour na jeunesse su Grand Yoff nañu génn dem rayante wala génn nañ dem génn dem xeex yi ñun duñ ko man duma ko wax man Grand Yoff bu may man su ma amoon ay milliards biir Grand laa koy def pour jeunesse bi avancer pour jeunesse bi am luñ dimbalee seen ndey ak seen baay pour mën a jël beneen tànk bañ a jël beneen tànk jël tànk bu baax mais du ma woo jeunesse su Grand naa leen kaa leen ngeen dem xeexi yi pour lan moom bu fekkee li muy wax dëgg la ki ko jox tur yooyu na ko génn voix am ñu teg ko si audio bi mu gën a leer ndax ñun xam naa ne lu ñuy def ragaluñ ko ñun luñu kenn ñun bu ñu amee lenn lu ñuy lancé si grave dañ koy lancé nit ñi di ko dégg duñ ko nëbb di ko nëbbatu leneen dafa am nañu xam ni grave ñu ni neen la am na ñoo xam ne dañoo jug pour yàq suñu der pour boole ñu féewalawuñu sa duñ ko jaarale si cadre politique fii ku fi ñëw indil ñu sa xéewal yéene ñu ko dañ koy jël lekk ko ndax ay doomu Sénégal la ñu. Amadou Sall teewaayam ci Grand Yoff discours bu ama am solo laa fekkee mu def ko wax naa ko benn du ñaar du ñett li mu njëkk a wax comme waxtaan mooy ba xam am ngeen xëy ba xam jàpp ngeen ci dara te ngeen moytu di kar ak nangu alul jàmbur liggéey c'est le travail qui paye liggéey mooy may. donc ku yaakaar naa ku bëggoon xam li mu wax lii la wax. pa mu ñëw si Zarko ay nervi yi Zar Grand Yoff moo ay nervi yi. nervi li mu gis nga gis nga li mu porté discours bi mu porté Macky Sall sax bu wàccoon ñëw fii loolu la ñu mën a wax même Sonko la même chose ba mu ñëwee man fa la ma fekk ñun dañoo soxlawul sax Sonko ba mu ñëwee ba mu ñëwee na dem yoonam li mu wax c'est très clair ba xam ndaw ñi am ngeen xëy ba xam am ngeen si lu ngeen jàpp nangu alal nangu alal war naa mën a jeex si gox bi war naa mën a jeex si mim réew kenn ku si nekk am ci loo jàpp liggéey ñàkk jëriñu te ngeen bañ di taal réew mi

même xalifa généraux yi parce que xeex moom yaakaar naa kenn du ko sant kenn na dëkk bi tàq ñun soxla ñu loolu képp ku yàlla di fal nag yàlla rek moo ko xam kooku daf nday boobu ñu siy tudd kooku sargal yaayam loon def def la huit vie ngay def sargal sa yaay yë tuddee ko nit nit ñëw jàppale la ñee taxaw fee di wax lu ne mais mais mais mais pour lan pour lan pour lan yow gis nga gis nga gis nga gis ñi ngi ci ñi ngi ñi ngi ñi ngi ci réseaux sociaux yi di wax war nañu xoolaat seen bopp bu baax a baax te di leen xamal ni nag ah, laa ngeen laalaake lu leer laa leen wax du yomb li ngeen yéen ñooñu nekk si réseaux sociaux yi di wax laal ngeen laalaake gis nga gën bu ngeen fi duggee bay wax di di di ngeen fi fekk ñu leen gën a teppee génn de barki Sëriñ Bamba fekkee gis nga bu ngeen ko bu ngeen ko continuer di ngeen fi ñun ragaluñ dara ci li ngeen di wax ñun ci digg ñàng tang bi lañ dëkk te ñoo leen gën a pare gën leen teppeeku gis nga man su ma buggee taxaw man Zarko man kese ma bëggee taxaw pour jàkkaarloog Sonko wax ko lu ma neex amul mbindeef bu koy dindi te biir grave laay toog di ko wax su ma bëggee jàkkaarloog Macky Sall di ko wax lu ma neex fii laay toog biir grave te dama koy wax du ma génn Sénégal xam nga yéen ak ay tappet ngeen nekk Europe ah, di wax mais ñun ñu man su ma bëggee wax ma bëggee jàkkaarloog Sonko wax ko lu wa saaga ko wala ma bëgg jàkkaarloog Macky Sall saaga ko ah, wala ma bëgg jàkkaarloog benn autorité saaga ko biir grave laay toog ba pare def li may def ma xool kan moo may jël si te ku may jël si néew ngay yóbbu ma xamal la loolu ngeen ngeen dugal ko seen bopp que ñun li ñun li ñuy wax ñun li ñuy wax ragaluñu ko ñun ragaluñu ragal Zarko ragalul Sonko ragalul Macky Sall ñooñu ñoo gën a tuur ci samay soucis ba ba ma man ma war a taxaw ah daa damay wax naan nit na ma Amadou Sall waroon na indi ay milliar sax ne ma utal ma ay milliards nga xool Tunkara mu ngi ba États-Unis je bien donc fi mu nekk pour mu bàyyi xel gars yi ni

tey ñu suuli ko bu jullee ko ay mbokkam di jooyoo organique kaddu moo ko yóbbu si bàmmeel donc dañuy bàyyi xel kaddu yu ñaaw yi nañuy xoolaat si ñu bopp te xam ne ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. kuy mars bu la bul jaar gànnaar jaaral feneen nga dem sa na nga yem sa koñ déedéet doo fi taal pono doo fi yàq doo fi toj dara maa marsal nga dem sa yoon mais grand santuñu kenn mu taalal ñu ko parce que ñun suñu ay yaay fi nekk ku fi taal pono ñu taal la taxaw si kaw tali bi ku ñu taal la man nag ay xaw ma bambara boobu gambien boobu duma ko sax tontu duma ko sax tontu parce que moom li muy wax noonu <coughs> Tunkara Ven español, regla tú sabes qué? eres una mamá ñema mamá huevo de mierda a mí no me interesa tu cosa me entiendes si tienes huevo conmigo vete aquí yo estoy aquí tío estabas hablando español no sé inglés pero vente aquí yo estoy aquí en África estoy esperando aquí si tienes huevo concha tu madre tío